abonné leen ci suñu chaîne youtube ngir jot saa ay xibaar yu wér te ci réew mi ak ci bitim gannaaw gat sa gat sa day jàpp sa jàpp sa am ci réew mi tribune yéene kaay ne ma ñeenti téeméer ci ne dan doon yàq ak nañ leen liyée ngi tukkee yéene kaay bi naan maan ci manifestation yu 16 mars am ci réew nag réew mi ñetti façon gu moo am réew mi ngi jàpp ña nga xam ne ñoo bokkoon ci manifester yu 16 mars yi ñoom jàppagum nañ leen ay responsable ak i gros bras Pastef ñu ciblé leen libération ne ko maa la koy xamal niki démb nag division des investigations criminelles daal di nañ nit Omar Diagne mu ne la mu waxoon moo ko wax te du ci del ci ginnaaw daal di koy dëggal seen kanam ñu daal di jël Cheikh Omar Diagne teg ci garde à vue Abdou Karim Gueye ne leen seeni laaj duma ko tontu Ousmane Kébé coordonnateur magi Pastef ca Kër Massar Babacar Mbaye ak Ndofène Diom jàpp nañu leen sandarmëree ko def libération ne ma jeexagul gannaaw ba nu xoolee vidéo yi sûreté urbaine daal jàpp Famara Mané ñu gën koo xam ci ñancoo ak ñeneen nit bi naan maan ka xam ne dañu koo jiiñ jiñoon ko bokk ci gendarmerie te nee ñu nag moo jël sinébar gu bon googee def ko Ousmane Sonko empoisonné ko daal di yarga si ndeke yoo Pastef la bokk moom it gendarmerie woolu na ko gannaaw ba ko enquêteur yi wooloo dafa ni leen morso laa jël duy ci bineegar ba mu fees daal di koy jébbal Ousmane Sonko ngir lacrymogène yi bañ koo sonal libération naan maan yarga moomee bokkul gendarmerie de Ousmane Sonko la àndal ci Pastef la bokk tribune naan kon lu toll ci ñeenti téeméer ci doomu aadama jàpp nañ leen libération ne ko juróom fukk ci ñoom bokk na ci Waly Diouf ma nga xam ne waa impôt yi demee ña ngay ñu daal di koy libéré fas nañu yéene nag jébbal leen parquet ni ki tey ay jàngalekat ak i élève ñu jàpp leen waa CUSEMS ak CUSEMS al yéene kaay bi naan maan tey jii ne ñu dañu yëngal gësam l'école bi ngir nag ñu bàyyi seeni ñooñ yéene kaay bi naan maan booba Pastef ma ngay wootee mobilisation ne seeni gaay nañu génn ci mbedd mi sàkku it ñu daal di rawale Ousmane Sonko bitim réew Sud Quotidien naan kon riigal foofu sa baaraam ndax sàkku teefu Alioune Tine la l'observateur naan kon waaye nag bu leen fàtte ne Ousmane Sonko dafa am lu tënku ci kawam ci wàllu yoon lii nar na dëgëral évacuation bitim réew tribune yéen kaay nan leen ma yegg lii keroog ñu doon gàmm dañu am ñu doon ras dem am ay sàcc ak agresseur caméra de surveillance yi daal dinañ leen di feeñal ñu def lu ñaaw ci réewum senegal Sénégal magasin benn maire boo xam ne loole la yaakaaroon ngir dundal ak njabootam ñu caxat caxatee ko ba maar day yàq ko yaxeet ca Pikine source nan man def katu ñaaw te fi bari woon nañ lool ci manifeste gi keroog lakk nañu daal di taal siège APR ca Parcelles Assainies ndeke yoo ay agresseur ñoo ko daal di def responsable APR bi ni ñëw nañu ñetti yoon ñetti yëpp policiers yi dañ leen puus waaye bu mujj bi dañoo yore ay ngànnaay fital yore ay jaasee ki paaka moo tax ma ne waa sécurité bi bàyyi leen leen ñu jël la leen saf te la ñu jël kat moonte dañu duggaat ci kër yi di ko jaay ndax nag bagage yi fekk nañ ko ci biir i kër ña nga bàyyeekoo diggante Guédiawaye ak Parcelles Assainies turbine yéen a kaay naan kon manifester nan yàq nan fi mu nag ña ngi leen di jàpp wel l'enquête quotidien naan kon waa Pastef nee ñu dañuy porter plainte ndax nag dañoo bëggoon caxat caxatee bakkanub Ousmane Sonko di sàkku nag ñu delloo ko passeport am ngir mu mën faju ji bitim réew Moussa Sow njiital COJER ci critique yéen kaay ne ko déet balaa ñuy gàddu Ousmane Sonko roñ roñeeg moom jëmale bitim réew nañu def ab contre expertise xool ba dëgg-dëgg la ñuy tuuma ne Ousmane Sonko dafa wopp lool ndax lu am la ndax nag mbir yi mën naa raxum tappale di tribune yéen kaay naan kon en tout cas xale yi génnoon ca ma rek police dañ leen di fekk seen kër yi di roñ Omar Sow conseil spécial président Macky Sall nekkit responsable APR ca yëmbal sud ci l'info yéen kaay ne xale yi daal ñoo ko teg seen bopp ndax nag ñoo topp ñu génn leen ñu génn xeexi leen ñu xeex joxe leen seen bakkan tey ko ñu daal di koy jox su ma doon président Macky Sall nag parti Pastef ci boppam laay seeyal ndax nag fi mu jëmale réewum Sénégal du fenn fu dul ci guuta suñu doom yaa ngi ayoo ak di xeexoo ci seenu biir di génn di manifester ñu leen di jàpp te kenn tegunu ko na kudul Ousmane Sonko le mandat yéen kaay mel ni ku naan ko déet déet mbaa fu tooñ yendu jàmm dana fa fanaan ndax nag réewum Sénégal dañoo nekk ci réew moo xam ne démocratie dañu koo daal di caxat caxatee dëggatee ko napaaje ko liberté yi nga xam xam ni war a am ci réew mi sañ def ak sañ wax ñu daal di koy jël nërmeel ko tàbbal géej Sénégal gii kenn sañu fee wax kenn sañu fee def ku wax ñu yóbbu kaso ku wax ñu daal di lay caxat caxatee def la loo xam ni maar day taali Sénégal la nekk goo xam ni nag sunu mag yi bu nu dekki waatoon ñun ñi ko yor saa si tembe dinañ rus turbine yéen kaay jox kàddu Charles Émile Abdou Ciss muy le ni ñaar bu ñuy xeex te kenn képp doole moroomam soo àtteewul da sot nañu wax ak président Macky Sall xool ña ngay àndal nag ci làngu politique gii ñu xaalal la géew ba mu yaatu lool nga ni dama damay xool ñama cay àndal bëreel moo dul dëgg du yoon tribune yéen kaay naan kon du ñoom rek di gëm sa bopp it ngi koy saboté wel te ji ñu ko kenn ku dul premier ministre soxna yi gëm sa bopp ci l'info yéen kaay ne président Macky Sall mooy galgal seen njiit Bougane Gueye Dany benn waxtu laataa ñuy amal seen manifeste googee ci leen leen xamal ci whatsapp ne leen seen autorisation bi nangu nañ ko ci leen leen xamal ne mën ngeen dem te teere ba def seen meeting benn waxtu avant soxna yee naan dogal yaa nga bàyyeekoo ci kaw te sabab gi nag du leen lu dul daal di sonal Bougane Gueye Dany xañ ko nag candidature gi gii tekkate njëkk nag mooy ki ne ci bopp réew mi di président Macky Sall éliminer beneen adversaire Bougane Gueye Dany la fas yéene ci réew mi soxna ye naan waaye ma koy yàq ndax nag par A ou B daañu investir Bougane Gueye te par A ou B dina bokk ci làng gi neex bëre naqari bëre kay moo fi am waaye force la te lii misaal rek la woon de activité politique yu gën a métti ñi ngi koy teg ci ndoddam fi politique bi toll ak fi réew mi toll deesatul may président Macky Sall ci réew mi docteur Abdourahmane Diouf ci tribune yéene kaay naan bi booloo ñu def plateforme doole bu ñu defalub say booloo ci sunu biir président Macky Sall day dañuy jàpp nal nu ne limoŋ nam ko waxee woon critique yéen kaay naan maan waxtu wa nga xam ne réew maa ngay boy gaa yi président Macky Sall moom ña ngay waajal seenu mbër Abdoulaye Seydou Sow ma ngay mobiliser waa Kaffrine fii ci Ndakaaru l'évidence yéen naan maan Amadou Ba ma ngay xam ne ni président Sall mooy seen candidat le mandat yéen kaay naan maan Adama Diallo DG Petrosen Holding di maire bu Gossas ma ngay xam le ni neex ak naqaree ci yem président Macky Sall candidat lay doon ndaw yi nga xam ne ñoo nge président Macky Sall Sall dem leen bindu ji ci liste électorale yi ndax nag bu ngeen ko defee Sall ngaari day dina am score boo xam ne mësu koo am ci réew mi ndaw Gosaas moom tabb nañ ba nuppi te président Macky Sall lañu choisir muy doon seen candidat vox populi naan maan candidature yaa ngi mel ni tulleeg maale diggante Abdoul Mbaye ak Mamadou Lamine Diallo Walf Quotidien naan kon boole ci maître Cheikh Niass mi nga xam ne moo jiite Walf nee na moom it boo moytul candidat lay doon waa Grand Place naan maan diggante Kaolack Vélingara nga def ab week-end bu mobilisation ngir nag Alioune Sarr nekk candidat bu AFP 2024 Dakar maire bu Notto Diobass commune bu Mbour bu Foundiougne Kaolack Kër Socé bu Nioro bu Guinguinéo bu Daara Thiès Linkering Touba ak diaspora bi nee ñu AFP ci boppam seenu candidat kenn la Alioune Sarr la ndax nag ministre bu urbanisme bi woon moom rek la ñu gis ci parti bi ko xam ne ci dëgg-dëgg man naa wuutu Moustapha Niasse direct ci news naan maan waxtu woowu programme bu yees bu ñu duppee yeesal Mbour daal dinay taxaw at gannaaw ba nga xam ni Mbour fal na ko Cheikh Issa Sall daal dinay defuk bilan daal di yóbbu soob leen nag ci projet yoo xam ne war na mën a tax mbuur daal di soqaliku fayal laa waxtu woow l'observateur naan leen jàpp leen lii de tena bi boo moytul Cheikh Tidiane Koulibaly leen koy jébbal tribune yéen kaay naan ma adduna bii de ku ko jàppit jàpp la nee leen gees te xool Pala sàmb demb tey jii daal nay génn àdduna Pala sàmb maire bu Fann Point E daal dinay làqu malaise moo ko daal di yóbbu borom social baax ak accessible Pala mi taxaw woon commune am yàlla rek ta ñaawal ci wàllu politique